fédération Zaadul Musaafir di fédération bu ëmb ay daayira yu nekkee ci réewum Canada ci njiital Serigne Moussa jenkalaamu la ñëwoon ci cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalifa général des Mourides doon ko jébbal seen addiya jëm ci màggal gi ak addiya ji nga xam ne juróom benn weer yu ne dañ ko jébbal Serigne bi mu jëm ci liggéeyub complexe cheikh Ahmadul Khadim bi addiya ji nag mi ngi toll ci 29 millions francs CFA fédération Zadul Musafir ànd ko ak daayira Maam jaare yi nga xam ne ñoo nekkee ci réewum Canada ak mbooloom bernde 18 bi ñu agsee Touba ànd nañoo ak Serigne Bassirou xel Xelkom mi nga xam ne moom la leen Serigne Saliou Mbacke boole loon ñu jébbal Cheikh Mamadou Mountakha Mbacke addiye ji ginnaaw bi jëwriñ ji yëkkati fay kàddu. salaamaaleykum wa rahmatulah Mbacke ñu ngi lay ñaanal nga gën fee yàgg loolu gën a wër di xam ne mbooloo mii de moo tudd mboolooy Zadul Musafir Zadul Musafir di Touba kanadaa Serigne Saliou moo joxe woon tur wi lëkkale woon mboolem daayira yoo xam ne dañoo nekkoon Canada ci njiitul Serigne Bassirou Mbacke mii. maanaam kàddu yi sax bu jógee maanaam kàddu cant la yoo xam dafa jëm ci mbooleem murid yëpp jëm ci jëmmam ji ndax daf ñoo yombalal liggéey bi lool Mbacke daf ñu koo yombalal lool tàggat ñu tette ñu tagal ñu ba ba ba ba ba ba lu ñu mën lu bari rek ci ci aw fitam moo moo ñu ci fital mbooloo mi fa nekk nag. sunu borom dafa dogal sa toogaay wii de nga doon sëñ Tuubaa yàlla na yàgg lool daf leen gën a yokki pas-pas ndax bi ñu déggee seen ndigal li ba tey ci université bii sunu borom day dogal juróom benn weer bu ne dañuy takk suñuy addi andi ko bañ ko tàmbalee ba léegi ne murid di génn murid desul gannaaw ñoom nag liñ bëgg Mbàkke mooy bokk say ñay xare di la liggéeyal kete amuñ benn bëgg-bëgg amuñ dara bëgguñ dara nga nga nga nga yàgg fi rekk lañ bëgg ba ñu ñu ñu ñu di la fi yàgg fekk rek di la yàgg jox addiya Mbàkke na nga dund lool murid ñoom seen bëgg-bëgg mooy mooy mooy mooy ñu di la jox addiya ak di la gis loo loolu rek lañ bëgg Mbacke waaw bëgguñ dara barke Sëriñ Tuubaa Serigne Mountakha Mbacke xalif général des Mourides santaan na bu baax a baax fédération Zadul Musafir ci yitte gi ak Pastef gi nga xam ne saa su ne ñu ngi koy wane ci liggéeyu Serigne Touba bi yéen waa Canada ñu ànd ak Serigne Bassirou Baye Mor Ndiaye yëkkati kàddu yi Serigne bi dégg na ko baax baax mi ngi leen delloo am nuyoo yéen ñëpp mu ne dégg na kàddu yi bu baax a baax mu ne kàddu soññee rek la mu ne mi ngi leen ci sant di leen ci gërëm bu baax a baax mu ne ci taxawaay bi mu ne xam nañ ko baax yëg nañ ko mu ne gis nañ ko itam mu ne kon ngi leen sant di leen gërëm bu baax mu ne di gën a soñ suñu bopp mu ne gën a feddal suñu laxasaay fas yéene ko ànd yéen ba faaw rek mu ne jërë ngeen jëf mu ne taxawaay bi dal na xelam lool mu ne bég na ci lool waaye rawatina bi ngeen ànd ak sëriñ Bassirou Mbacke mii nga xam ne at mu jot moom ngeen di jiital topp ci gannaaw neen mi ngi leen di gën a boole ak moom li sëñ bëgg lépp mu ne li sëñ Tuubaa bëgg lépp mi ngi ci sëñ mi mi mi ngi sëñ Basiiru Mbàkke xel kom mii kon ndokk bi ngeen àndee ak moom na ngeen seen xel jiital ko topp ci gannaawam lu digal ngeen def ko rek mu sàkku ci sëriñ mu ñaanal leen bu leen gis mukk ci li na ñëpp tàllal seen loxo bismillah fajaani bima bihi fajaana باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا السلام عليكم mu di saadix yi kon gannaaw ba ñu santaate Sëriñ Tuubaa bu baax a baax ci tawféex gi mu ñu defal ci bisub tey bii nga xam ne ziar nañu suñu yaakaar yi àddina ak alaaxira Cheikh Mouhamadul Muntaqa jébbal ko suñu ñaq nañ ko baaxee def juróom benn weer yu ne ñu ñëw fekk ko fii mu nekk ziar ko. feddaliwaat suñu pësteef takkaat suñuy laxasaay jaayantewaat suñu digganteek moom loolu nag moo ñu fi indi woon tey euh, sëñ Tuubaa defal nañu tawféex ba lépp jàppandi na def nañ ko ci ni murit baaxoo di siyaare ab sëriñam kon nag kàddu yi kàddu yi cant dong lay doon yoo xam ne dinañ ko jëmale gannaaw ba ñaanee sëñ Mouhamadou Mountakha Bachir saa borom def ci moom kéemtaanu dund mu yàgg fi lool ànd ko wér gannaaw loolu dañuy santaat bu baax a baax sëñ Basiru Mbàkke xel ko mi nga xam ni moom la sëñ bi doxalee suñu digganteek moom di sant sëriñ tubaab bu baax a baax a baax ci boole gi nga xam ne boole nañoo ñun kàddu yi daal kàddu yu cant la duñ ci dolli leneen suñu jëf yegsi na takkuwaat laxasaay yëpp delluwaat ci liggéey bi ñëwaat ci diir bu gàtt jërë ngeen jëf. ginnaaw bi leen sëriñ bi ñaanalee fédération bi dem nañu ziyaare ji sëriñ Moussa Nawel mu am ay kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati na ko fa daal leen koy dolli. dafa delloo ci sëriñ yoon wi. Cheikh Ibra Fall doon seen ñeent fukkeel nañ ko tëree woon ca booba loolu la yeesal yàlla it far ko ca yàlla it far ko ca yéen ñëpp ay tuut tànk ngeen yéen ñëpp ay tuut tànk ngeen waaye ñee sosoon yoon wi waaye ñee sosoon yoon wi ëpp ñu leen yéene ëpp ñu ñu leen pas-pas ci sëriñ ëpp ñu leen pas-pas ci sëriñ bi loolu nag kon. loolu nag kon. day feeñal nangul gi sëriñ bi nangul seen pas-pas. day feeñal nangul gi leen sëriñ bi nangul seen pas mu agsi ci yéen. mu agsi ci yéen. sëñ bii ñu nekkal tey nag. sëñ bii ñu nekkal tey nag. yeesalaat pas-pas yooyu. yeesalaat pas-pas yooyu. mbas mii am daaw daaw jéeg ren. mbas mii am daaw jéeg ren. ba ñu ma ko dalee jàmbat. ba ñu ma ko dalee jàmbat. muy waa bitim réew. muy waa bitim réew. ñoom Basiirou Dia. ñoom Basiirou bi ma ko waxee ci màggalu poroxaan bi. ma ko waxee ci màggalu poroxaan bi. sëñ ma cee ñaan. daf ne ma sëñ ma cee ñaan. waaye sëñ ma jël sëñ na maa jël sama dënnu. sës ko ci sëriñ bi. sës ko ci sëriñ bi. bàyyi koog sama bopp. bàyyi koog sama bopp. ak taalibe yëpp. ak taalibe ca la nekk. loolu ca la ñu nekk. ba ba atum ren jii. bi mu bëggee mu jeex ci adduna bi bi mu bëggee mu jeex ci àdduna bi dana ne adduna ci boppam daf ne ma adduna ci boppam suuf suuf moo jaaxle moo jaaxle xamatul fu mu jëm xamatul fu mu jëm loolu nag dama yaakaar ne moo ciy pexe loolu nag dama yaakaar ne moo ciy pexe mooy delloo suñu bopp suñu Tuubaa mooy delloo suñu bopp ci suñ Tuubaa kattanu kattanu soppi adduna ak aar ko kattanu soppi adduna ak aar ko moo ko man moo ko man nañ koy defe nag moo nañ koy defee nag moo di benn fanu muharam benn fanu muharam danaa digal isbu tarxiye yi danaa digal isbu tarxiye yi penc yi ci Touba. penc yi ci Touba. penc mu ne ñu def ay baas. penc mu ne ñu def fa ay baas. ñu dëkk penc ma yendu fa. ñu dëkk ci penc ma yendu fa. yéen ñoo jàng xasida. yéen doo jàng xasida. ba tàkkusaan. ba tàkkusaan. lañ leen di ba. lañ leen di lele ca bis. ba. maa ko jox Youssou Diop. maa ko mu togg ko. mu togg ko. bu fa ay dab. bu ne mu yóbbu fa ay dab. tàkkusaanee nag ba ba ba lépp àgg. bu tàkkusaanee nag ba lépp àgg. xam naa ne sëñ Touba. xam naa ne sëñ Touba. ñii ñaan yàlla ñëpp. ñii ñaan yàlla ñëpp. dàq ñaan yàlla. moo moo leen dàq ñaan yàlla. te ba mu koy ñaan. te ba mu koy ñaan. bàyyiwul dara ci ñaan la. bàyyiwul dara ci ñaan la. waaye la mu koy ñaan nag. waaye la mu koy ñaan nag. nangu ñaan gi taxul mu koy ñaan. nangu ñaan ga taxul mu koy ñaan. ngantal ñaan ga it taxul mu koy ñaan. ngantal ñaan ga it taxul mu koy ñaan. da koo ñaan rek. da koo ñaan rek. ngir màggal boroomam. ngir màggal boroomam. ak jaamu ko ak jaamu ko. mu ne nun nag. mu ne nun nag. xay na mënuñoo àgg foofu. xay na mënuñoo àgg foofu. waaye sañ nanu waaye sañ nanu bu ñu yendoo ba ngoon bu yendoo ba ngoon nu wéeru ci ñaanam googee nu wéeru ci ñaanam googee ñaan mbas mi jóge fi ñaan mbas mi jóge fi tofal jayit tofal jayit tofal jayit tofal jayit naataange naataange yoo xam ne yoo xam ne ñu tàmbale ci nawet bi nga xam ne ñu tàmbale ci nawet bi nga xam ne day tàmbale ci nawet bi nga xam ne cate na cate na yàlla dogal Serigne Youssou dese naa dégg wax ja. Serigne Youssou dese naa dégg wax ja. daal di koy yaatal. daal di koy yaatal. woo ñëpp. woo ñëpp. bi mu yëgee ne wootee nañ ko noonu yi. bi mu yëgee na woote nañ ko noonu la ma ne Iblis day. la ma ne Iblis day. lu mel noonu daan na ci dugg. lu mel noonu daan na ci dugg. waaye bu yàlla dogalee. waaye bu yàlla dogalee. ñi wuyu si ñëpp. ñi wuyu si ñëpp. ànd nañoo man sama pas-pas boobu. ànd nañoo man ci sama pas-pas boobu. ci delloo sëñ bi suñu bopp. ci delloo sëñ bi suñu bopp. bañ caa boole dara. bañ caa boole dara. kon wuyu si gi day gën mu ñàkkee wuyu si. kon wuyu si gi day gën ñàkkee wuyu si. te yàlla dogalal na ko loola. te yàlla dogalal na ko loola. nit ñi ba ñuy ñëw. nit ñi ba ñuy ñëw. dee ak ba ñu yemale. dee ak bala ñu yemale. dañu jox jox seen dañoo jox sëñ Tuubaa seen bopp. sëñ Muntaxa foofu la toll. sëñ Muntaxa foofu la toll. noonu la aaree adduna bi. noonu la aaree adduna bi. yàlla sagale ko ko. yàlla sagale ko ko. defal ko ca ndam. defal ko ca ndam. nun taalibe yi nu koy xuuyoo. nun taalibe yi nu koy xuuyoo. kon yéen ñi nga xam ne. kon yéen ñi nga xam ne. xay na sama doxin da leen neex. xay na sama sama doxin da leen neex. da leen a neex. da leen a neex. ba ngeen bëgg ci man. ba ngeen bëgg ci man. yoon waa ngoog. yoon waa ngoog. maa ngi. maa ngi yéen a ngi. yéen a ngi an <laughs> dem an dem. jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke ci fàttali fédération zaadul Musafir di ëmb ay daayira yoo xam ne ñoo nekkee ci réewum kanada tur waa ngi bàyyeekoo woon ci Serigne Saliou Mbacke. noonu it la ñu àndeek Serigne Mountakha Mbacke Bachir ci liggéeyub Serigne Touba bi ndax ba mu dooree liggéeyub complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi ba léegi juróom benn weer yu nekk daañu ñëw jébbal sëriñ bi seenu àddiya mu jëm ci liggéeyub université boobu le te nii lañ ko fas yéenee ànd ak Serigne bi ba liggéey bi àgg ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak yeneen i liggéey.